asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem ñu nekk ci al ibadatul xidma yëpp euh, xam naa lii sax du suñ mbir wax dëgg suñ mbir ndax amuñu jotam muy di wax ak nit téléphone di ko enregistré waaye ñii itam nag dañoo egg foofu ci waa kër gi eggin boo xam ne jaadu na seen bor bi ñuy lebal sëñ bi ñu leen ci mosal. moo tax ki nga xam ne ah, mooy si daanaka ah, mooy mooy mooy mooy mooy kilifa ak ay di seen kilifa loola daanaka mooy sababab tax ma woo ko ngir nit ñi xam ne ah, ñi ngi eh, yóbbee seen bopp bàkkaar ndax eh, njabootu sëñ bi yaakaar naa fi ñu toll eh, ñoom ñoo ñu di wax kenn eggu ci ci. amul naqar ak ak ak ak aku tiis ki yar mu am kilifa la bokkut ak ki ñu yarut amul kilifa loolu rek la loolu tax téléphone bi ma doon téléphone ak moom ma ne nañ ko jëmmal ba ñëpp jot ci ndax bu bu ko ñëpp déggee rek daañu xam euh, mbir mi mbir mi niñ ci war a doxee ngeen jëf. maaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ ji ngeen dafay jaay. sant baax. alhamdulilah. alhamdulilah. alhamdulilah tabaarkalla woote bi di jàmm ak salaam rek la. waaw ndax dama ñëw xale yi ci kër gi mel ne am na luñ tasaare loo xam ne gënalul leen. Hmm. te waaw ndax dafa am mbir moo xam ne suñ ji bi. foofu fan waaw ndax euh, bu fekkente ne maanaam kilifa toujours da nga ñëw fi moom. waaw te boo ñëwee di enregistré la muy wax. ci secret waaw waaw ndax loolu loolu nun ñii kenn rafetlu na ko ñi di ko def sa kilifa. waaw man de loolu jaaxal na man affaire boobu loolu ko génne. loolu loolu loolu loolu loolu tax na ñoom ñëpp mer nañ ci mer moo xamante ne ni loolu mën naa ñàkk. te it mën am lu mu man de man de sëñ Mountakha ma la waxee dëgg ci jot sax jaaxal nañu fu yi moom dagg ko rek la ndax image yi mooy ba ngeen dikkee njëriñ. waaw te bi. waaw photo boobu lañ jël boole ko ak. déedéet gis waaw dé dé dé déggoo li ma la wax. Hmm. xam nga maanaam yéen bañ suñ bañ ba ñaare ba ba mu leen di tasaar njëriñ xam nga kenn nekkul woon ci biir. waaw yéen rek yéen a fa nekkoon. waaw kon xam nga la fa génn kon yéen a ko génn. Hmm. te la fa génn it xam ngeen xam naa ndax maanaam wax ja. Hmm. maanaam da ngeen a dagg wax joo xam ne ni sax sëñ bi da ko doon wax ca euh, soxna Bale ca Poroxaan ci ñoom. diis gi maanaam mooy ñaari baat ñett yu ne ab ko jóg génn. ah kenn ku ne di ko dégg. Hmm. ah maanaam mu mel ne sëñ moom toujours mi ngi mi ngi mi ngi wax fu mu toll ci réseaux sociaux yi. Hmm. wax dëgg yàlla loolu sëñ ji bi am xel da ko nangu ci kilifa gu toll ne ki fi nekkal sëñ Tuubaa. Hmm. ndax Saaliwu moom. audio ba mu tontoon ku ne dégg na ko. la mu ca wax nga ko dégg naa ko. yàlla ci boppam bu dee wax sa ayib. daf laa bëgg a defar. sama moroom doomu aadama bu dee wax sa ayib da laa a weer. xam nga jooju wax nun ñi nga sëñ Muntaxa daf noo jaboote xam nañ ne jooju wax kon sëñ Muntaxa moo ko moom mm-hmm. waaw ndax moom ci Saliou Samb ci moom moo yàlla ci bopp bu dee wax mm-hmm. daf laa bëgg a defar sa moroom doomu aadama lu dee laa bëgg a weer muy bi sëñ bi waxee ci ci ci ci guddi te boobu it bi daa sës ndax ginnaaw woon leen ci pet wax ak yéen ci turuq lu ne mu def ko yéen te ahlul islam bépp waññeer bi ku di ko jam mm-hmm. deram bi lu ne ñu di ko ci teg hmm? loolu ci ma ci ma jëm bopp damaa jàpp ne bu doon dara it maanaam euh, sëñ Tuubaa mi nga xam ne ñëpp noo ko bokk nu man ko nu man nu mën a sàmm deru sëñ Tuubaa bi ndax suñu muntaxaa digg na ci kàddu yu ne lu ne ci àdduna wax nañ ko ne moo ko ci far moo ci ànd ak moom moo loolu lépp ñu mu di ko wéyaale hmm. ak jullit ab jullit jullit la ab jullit jamono yoo ko ne jéggal ma daf laa war a jéggal hmm. bu la jéggalu rek ak njullitam day daal des bi hmm. ngeen dikkee njeere mu mbax ngeen bi ngeen dikkee Touba keroog ngeen waxati léegi maanaam fi ndoolu maanaam ba ci te lu leen wax lépp day day safaanoo ak li nga xam ne mooy génn di tasaaroo hmm. ah ma defee ne nag maanaam fi ndoolu maanaam am na ci loo xam ne ak yàq la yàq gi li mu jur maanaam mooy xale yi tey fi ñu toll bu ñu yewoon ci misaal yu sàmb képp bu xasee mën naa ñàkk bakkan te loolu mën naa ñàkk ndax gone itam ginnaaw ñu ngi xëy bind ci journal journal yi wañale ba ku ni encadré sëñ bi ñoom ñoo ñoo ñoo leen ci far ñoo ci ànd ak ñoom ci li ñuy def lu ne ñu di ko yekk seen der yi ñoom itam ñoom ñoom itam loolu day day doon responsabilité ci ñoom lu ne ñu ngi ko yekk day doon responsabilité moom damaa la gënoon mooy ba ñëwee ñu joxe seen addiya te bañ a génne benn enregistrement loolu laa gënoon a rafet. Hmm. amaa jim bi nag am. Hmm? waaw man dama lay wax sama akulaay tàllaay. Hmm. man de li ma leer mooy. wax jooju enregistrement boobu. Mm-hmm. jógewul ci man te saale mi naa la jógewul ci saale mi ah, ah, ah, kay kay wax la hmm. xam nga fi ndoolu dañ lay wax saale bi bi dugg waaw la bés bouton enregistrement Saliou bi mu dugg la bouton bi da ko ñu mu a fay boo gisee sëñ bi jul nañ ba hmm. lu mujj li bu xamoon sax da koy dagg loolaa sax ànd na ci bi dagg récolté boole nañ ko ci loolu nag maanaam bi nga xam ne dem nañ ba ba julli ba noppi wax sëñ bi mujj wax ma nga ca te loolu xam nga dagg kole waaye boobu mënut a génne appareil di ko bës appareil man leer na ma ne Saliou bu ko tegaloon kaamil alxuraan ni mu bu fekkee gëm naa alxuraan laa wax de ni mu wut a waat ne maanaam moom bësut enregistrement am na loolu nag dafa rafetut rafetut ci ci ci ci ci as as as gor gi jullit jëmmi sëriñ Muntaxa mu toll nañ ko war maal te dimbali ko ndax njaboot gi nja jëm taxaw baabu waaw nga man man jax parce que man maa ngeen leen laaj ba tey parce que ñun ñii gis naa yéen yeneen groupe yi nga xam ne dañ naan ku ci bind mool kenn moo ko enregistré nangam nangam gis naa loolu gis naa vidéo boo si koy wane mais bi nga xamante enregistrement bi bi xam nga du benn bii rek hmm. enregistrement bi du benn bii rek itam suñ ci wi bul topp njaay ji rek sant njaay sant nga njaay loolu waaye ne bul topp sa njaay ji ah wala man loolu dinaa ko gëstu parce ah, déedéet xam nga maanaam yéen Saliou ci boppam day teg. day teg loo bu fekkee dañuy wax dëgg rek. maanaam wallaahi Saliou ci boppam day teg loo xam ne xamu leen ci dara. Saliou ci boppam lépp moom maa ngi koy woo jëluma ko waaye lépp moom yow moom mu xam digg dégguma kenn ku fi taxawal moo ma ci bi nangam. moom moomu dong lañ soupçonné te li ma leer maanaam mooy moom su moytuwul danañ ñàkk bakkanam ci erreur man loolu xam naa ndax ni ma gisee gone ni ñu mere tey wóor na ma ne bu ñu ko bu tegoon bu gone bu ñu tegoon bët Saliou Samb bët ku ñàkk ba kanam te loolu mën naa ñàkk ndax wax dëgg yàlla maanaam fi mu toll arrêté e, e, e, kilifa foo toll heure boo wiitee kilifa lu mu wax nga arrêté ko boo génne loola neex nga dagg kolle wax loolu itam dafa rafetut rafetut nañ nañ nañ nañ nañ nañ seet li nga xamante ne moo moo moo rafet ñu ñu di ko defe ko wax waaye nag dafa am loo xam ndax suñu mëntaxaa ba ci mbaaxam keroog bi nga xam ne tegal nañu ko yëpp eh, ay yàlla muy tuub dafa daal def da ko daal di jégal ca saasa jégal ca saasa la la def lam doon wax lépp lépp dafa daal di jégal ca saasa loolu lépp nañu bàyyi nañu bàyyi suturaal suturaal suturaal ko nag suturaal ko suturaal njabootu Sëñ Tuubaa gépp it nag ndax njabootu Sëñ Tuubaa gépp seen xol mi ngi jóg di tàng te bi ba mu fi toogee ba léegi loolu mos sa am ci moom loolu nag wax dëgg yàlla heure boo dikkee ci sëñ bi di enregistré di ko jël ko tasaare loolu def rafetut rafetut tasaare wu def na lu bon def na lu ñaaw te xamut lu mu koy jural it nag. daal loolu dinaa ko gëstu ba xam. boo boo gëstu gis li ma la wax rek. waaye man de. waaw. njortaguma ko ci moom waaye dafa dafa dafa dafa dafa am dafa am. maa ngi jégalu de kii kii ma taxawoo tax. waaw lo lool loolu la loolu la xam nga man li ma la wax rek man kër gi suñ mën taxaa quarante trois cent yoo ngi ànd waaye dama dul bëgg dara loo xamante ne lu lu lu lu ñaaw la di di di di ñi di ko def ndax keroog bi histoire bi jóge fële bi histoire bi bi bi yaa ngi dégg lay dégg waaw histoire bi naroon am loola hmm. bu amoon it maanaam wax dëgg yàlla dana dana dana métti Serigne Mountakha dana métti ku takk Serigne Mountakha hmm. te foofa nit ñaa fa ak muy ba ñu jógee fee di dem di dem gàmm te boobu buñ buñ buñ ko fekkoon mbir dana am ndax yoonu murit yaa am gën a xam fopp Sadio xam xam nga ni muy dox am na ci loo xam ne buñ ci àggee dañ duutul ay nit man wóor na ma ne gone kër gi fii nu toll li li liñ leen xëy yàq maanaam ñoom seen bopp tàngooru rek ñoom buñ jàkkaarloo Sadio tey adduna tukki adduna tukki. loolu nag mën naa ñaar am na ci loolu du ma bàyyi mukk ba mu jàll ma naan nangam ak nangam na def na wattandiku na wattandiku na wattandiku kam doon kam doon waxal naan ko am xel laa la laa ca def xam nga la sëriñ Abdou Lahad waxoon Senghor hmm. ne ko sii hmm. ma nekk def ump la hmm. waaye bu jàpp ne sa pale boobee la nga def ump ma loolu loolu moo am ndax Saliou kan lañu waxal naan ko dama leen ne jaayul ma xel ndax ba may dugg laa bës appareil bi. Hmm. Hmm? bo loolu lépp kon moom xam na ne kon ñoo ngi dégg ñoo ngay xam ñoo ngi dégg ñoo ngay xam am na ci loo xamante ne nag moom da ko war a wat dañ ko war a wattandiku kilifa boo waxee moom mu jox leen digal def leen nangam ak nangam ak nangam ak nangam. Hmm. leen digal tere leen lépp wax na leen ko ñu wàññeer bi ko wax wax joo xam ba tàgg kii boo xam ne ba mu euh, wax soxna Bali ca ca ci jigéen ni war a ak war a nem dotee loolu lañ ko tegal lañ lañ lañ ko lecc bi mu ñëw yoonam mu mujj li mu wax li wax yéen ba àggal hmm. ah, hmm. war di bàyyi bàyyi xel waaw lu lu da ci am loo xam ne nag maanaam fi am na ñoo tàng maanaam mooy ci boppam ñaata yoon la wax hmm. lañ ko tuddee xam ne ne màggalu gàcce la màggal mu waroon doon gàcce hmm. ñi am ci tàngoor am bu tàng di ba sëñ bi jóg gis nga ba mu waxee. Hmm. la war def mooy rëmm bàyyi. Hmm. bàyyi bu ko defee maanaam lu mën a xew ngeen bàyyee xol yi boobu booba xisoon na féete boor ba pare. Hmm. waaye Saliou ba muy wax rek wax ca rek dafa daal la neex buy wax say ayib da laa defar doomu aadama buy wax say ayib da laa bëgg kon maanaam. maanaam man jàpp man de suñu Mountakha jàpp naa waaw daf ni jënd suñu nañ ko suñu kanam lii mooy yàlla moo ne suñu kanam yeneen nit ñi. déedéet xam nga xam nga ba tey boo ko bëggee jàppee yàlla daa def bu rëy rëy rëy. suñu Mountakha ab jaamu yàlla la. waaw déedéet déedéet déedéet déedéet xam nga loolu maanaam mooy xam nga diine ji dañ ko fa am ñu ko bokkal xam nga diine ji dañ ko moomul rek. Hmm. fi loolu li nga moo gën daal sax xam nga diine ji dañ koo moomu dafa am ñun ko bokkal. man ma ko noonu ma fi ma jaar ndax xel man naa wax te xam nit ki xamagul li may wax dama ni. Ah? moo dox gi mu dox suñu diggante suñu borom suñu kanam moom noonu lay waxee ni moo loolu la loolu la féete ci ñun lu muy digal moo ñu def lu muy tere moo bàyyi. wallaay wallaay yàlla ci am moo digle ñëpp. xam nañ ne wallaay wallaay wallaay wallaay ñun ndigalam la ñuy déglu. wa te tereem dong la ñuy. wallaay suñ wallaay suñ ji bi man maa waat ne saa yu tegul fenn suñ mun taxaa tegu ko fenn daa bëgg a dund rek fenn tëb ko fa man xam naa loolu loolu xam naa ko yooyu loolu wax ji daal noonu ma la ko tënkee bëgguma benn bakkan di loru. ci tur lu baax. ci turu sëñ bi waaw man wax. waaw xam naa sa defar. naa sa taxawaay ci baax. man daal man daal bakkan bu loru te sëñ bi tax man loolu loolu di ci loolu moom soxna si moom loolu mooy bëgg-bëggam. waaw soxna moom mooy. waaw bëgg lu sëñ wax ñu tënku ci du mu tere ñu bàyyi ko. ah mu gën dama waat si Serigne Touba loolu rek maa xam. Ah. moom boo jabatee nit ñu si biir lépp doo ko mën a xam. loolu lépp moom li mu bëgg ba fii mu toll maa xam yow ba démb fii ñu toog fi mu toog daanaka sàmmante sëñ mu taxaa sàmmante day leen sol lu kër gi sax kenn dugg te mu sóoru woo nga sol lu noonu. ah bu fi kenn taxaw ndax taxaw gi mu taxaw ci bëgg nañ man mii ba ko dama la ko lëm ba ma ñëwee di toog démb ma ba dama toog randul ne soxna si nit ñi dina tal la wax démb nga xam ne moom daanaka moom lu bare mën na ko mën na cee bañ a jot ndax li xew ci rajo sociaux yi ak liy génn mën na ko bañ a yëg moom daal moom bu ko xamee bu a xamul defarul ko moom Saliou Samb moom waaw man loolu dina Saliou man bu ko xamee ak bu ko xamul defarul man dinaa dinaa ko gëstu ba xam lii mu wax moom ba lool si foofu dinaa ko baax ci moom waaw lan mu dinaa dinaa ko gëstu xool waaye na ñoo ñoo ngi tuub bu baax rek del tuub ndax boo jabootee te réew mi ak ñi ngay dendal ak ñi mën a jël lépp kenn mënu ko xam. waaw a tax man man a sëñ Salim Mbacke dafa ma sax nee na. Mhm. ku ci wax téléphone a ku ci wax muccoo. Mhm. man boobee laa man fi doon bu defoon sama ñàkk sama noppi gi ak sama ñàkk nangu dugg ci noonu am lu bay bala bañ ko ma yóbbu rek ndax mhm. la may ko moo tax wax. waaye xam moo tax kilifa gu toll si mu taxaa ba la woo wéet ak yow nga ayer ci lim wax xam nga foofu nag yàqu tàmbalee xam nga loolu yàqu ah, bi mboolem mboolem jataay boo jataay jataay boo xam ne yow njëriñ gis nga maanaam nga kon wéer kon loolu doon lum weer mm-hmm. mm-hmm. kon doon lum weer mm-hmm. nit ki nag maanaam li nga xamante ne maanaam mi ngi waxee yow maanaam waa kër boppam sax daf leen daf leen ne bu leen bu leen du ngeen ko fekkee est ce que loolu nag sëñ ji bi kon lu ñu war a génn di ko tasaare ci internet la ah hmm. ginnaaw waa bu doon loolu kay kon waa Gribaud mën dina bàyyi comme que bu li wax bu na fekkee dañ koy tasaare ci internet bi ñëpp jot ci kay kon kay mën dina bàyyi ah loolu nag loolu man de man man mer bi rek man daal mer mi xëy fi gis fekk ko fi te gis naa ci ñoom tension boo xam ne bu ñu moom la wattandiku li a leer mooy buñ bo mer nañ ko mer moo xam ne baaxut ci moom waaw moom ba yow mi def attention. moom béy maa ngi lay maa ngi lay sant bu baax. nag wax dëgg yàlla ma sañoon bakkan moom du lor mukk. waaw loolu du am ci ci ci ci ci ci ci ci. waaw loolu moom du am mukk. loolu moom loolu lépp tey nag saytaane ci moom daa mën a liggéey. ndax nit nit fi ñu toll kilifa dafa am lu moom ñim jaboote am luñ moom. ñi jaboote maanaam dañuy sa dañuy sàmm dignité dignité seen kilifa googu. sàmm googu nag mën naa dem ba def loolu sax loo xam Hmm. loolu rek la du dara. waaw jërëjëf ah, waaw jërëjëf. daal góorgóorlu tabatandiku. waaw jërëjëf waaw. Ah, waaw moom nag béy moom wattandiku moom ci boppam moom yow moom di ci waaye moom jëm ji de moom niñ ko ciblé ciblé wuñ ko soxla ciblé wuñ la wuñ la moom moom ma dem damay wattandiku moom. jërëjëf waaw jërëjëf. baax na baax na baax na baax